والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk tënku ji ndigali borom bi azza wa jal di wattandikuloo sunu bopp di leen wattandikuloo bëcc ay tereem mbokk yi sax ci ndigali borom bi azza wa jalla ay tereem de ci la doomu aadama mën a amee jàmm moo koy may ak mucc moo koy may tamit li nga xam ne mooy ak dal ku sax ci ndigali borom bi wattandiku ay tereem lu man di jóg ci xeeti nattu yi ak xeeti musiba yi xamal na keneen a ko tax a jóg waaye du yow mbokk yi diirub ay semaine a ngi nii ñuy dégg jàngoro joo xam ne ma nga xewe ca réew ma ñuy wax siin ñu koy wax virus corona muy jàngoro joo xam ne dafay faat ay bakkan yu baree bari bis bu nekk ñi muy dal di gën a yokk bis bu nekk ñiy faatu di gën a yokk muy dem sax ba génn réew ma di dem ci wàlliyaan ci yeneen réew yoo xam ne wax nañ ne lu ñaar fukk ci ay réew ci monde bi jàngoro ji ak sinaf loolu def ak tiitaanga ak njàqare ci mbooleem réew yi waaye mbokk yi nañu xam ne borom bi tabaraka wa moom dong mooy buur moom dong moo am kattan moom dong mooy ki nu war a jaamu xeetu jàngoro yooyu xeeti fitna yi euh, ak musiba yi nga xam ne léeg-léeg mu xew ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwutoon dara xamaloon nañu lan moo koy indi lan moo koy xamal nañu sax ci ndigali rek moo ci taxamu ci waxoon na ne am na fukki ak juróom yoo xam ne saa yu ci xeet wi saxee nekk ci sunu boroom na wàcc ay natt ay musiba ay balaa ci seen kaw bañ ko laajee loolu mu ne leen ida kaana almagnamu duwalan saa yu demee ba nga xam ne koomu àddina bi dafa yam ci yenn loxo yem ci yenn réew ñoo koy jokkalante fu ñu bëggul mu yegg fa dafa yegg loolu benn sabab la ci sabab yi tax euh, musiba yooyu wàcc nga xam ne ñee dañuy lekk bay wetti ñee di xiif ah, bay bay loolu benn sabab la ci sax sabab yi tax natt yooyu di wàcc mu teg ca wal amanatu magdaman bu demee ba nga xam ne kóolute amatul lu la waay dénk nga def ko ne loo moom buy génn nga di ko ah, sàkk ca jaar jëfandikoo ko ni ngay jëfandikoo loo moom loolu de benn sabab la ci sabab yi nga xam ne dana wàccee musiba yooyu waaye tamit bu demee ba azaka mu doon loo xam ne nit ki du ko joxeete ngir sàkku ci yoolu bi yàlla du ko joxeete ngir na ab ponk la ci ponk waaye dafay jàpp ne euh, pertaage la ci moom ak daat la duñ ko teg boo xamante ne bii da ko sëñ te bañ waaye su ko sañoo bañ du ko def su demee ba nit ki topp soxnaam ci waawe soxnaam lay wéy goddu way juróom bu jigéen la ab xaritam di xam ci moom ak la ab xaritam di man ci moom bàyyam du ko man ci moom loolu sabab la ci sabab yi tax musiba yooyu di wàcc waaye su demee ba nit ñi tamit amatuñu ragal yàlla jàkka yi nga xam ne fa lañ war a di delloo ci seen boroom su ñu fa nekkee yamale koog seen dëkkuwaaya lu leen bàyyi lu leen tax a bàyyi waxtaani àddina ak yëfi àddina loolu de sabab la ci sabab yi tax musiba yooyu di wàcc bu demee ba nit ki ñu koy teral di ko fonk ngir aw ayam wu bari ngir mucc ci aw ayam bu demee ba sàngara tasaaroo li nga xam ne mooy sol yi lay sooy tamit tasaaroo ñi nga xam ne ñooy woykat yi ngir gu nekk am seenu boycott am ku leen di tëggal yooyu yépp bokk na ci sabab yi nga xam ne dana tax musiba yooyu di wàcc waaye bu demee ba ñi ci xeet wii di rëbb ak a móolu ak a diigat nga xam ne ñoo doon magi xeet yi loolu bokk na ci musiba yi nga xam ne dana tax musiba yooyu ak euh, balaa yooyu di wàcc kon ay yëf yu baree bari la yoo xamante ne bi sallallahu alayhi wa sallam na bu demee ba nit ñi dund yooyu dana sawab ay musiba ak i balaa ak i xeeti tawat yoo xam ne kenn du ci mën dara kon ñu mën cee xamee ne ak mooy bu bari ak jeng buur yi ak ñàkk yërmaande li la yàlla defal ci xéewal nga faye ko ak ngoree gi loolu sabab la ci tasaaroo xeeti tawat yi ci borom bi nee na wa man yubaddil nicmata allah fa inna allaha shadidul iqaab xam ngeen ne réew moomu di siin bokk na ci réew yi gën a rëy ci àddina bi ci wàllu population bokk na ci yi nga xam ne ñoo ëpp économique ci àddina bi ñoo ëpp ab armée ci àddina bi ñeenti xeeti force yi nga xam ne dañuy wax ne benn réew mënut a jàll ci amu ko mooy nga am population bu doy ñoom ñoo ëpp ci àddina bi mat nañ milliards ak ñetti téeméer yu topp seen wàllu économique amul fenn fooy dem te doo fa fekk lu seen defar ba lii waa ne sax nga gis nit kuy dem lam sol lépp ca dàll ya montor ba euh, portable ba mu yoree wala weer yam takk wala bi gëpp def ci poosam ca gisoo ci maada inchi kon seen wàllu économique kenn nattabliwu waaye tamit noonu la seen wàllu nga euh, euh, arme noonu la mel noonu la amee kattan ci wàllu arme noonu la tamit seen presse mel yooyu yëpp kon ci wàllu doole amul genn wet goo xamante ne des ci ginnaaw amul mel ni réew moo xamante ne bi du dem foofee dafa fa jëggaani marchandise ak di ko fa indi ñooy ñi dàq liggéey mboolem xeetu industrie yi mboolem lu ñuy liggéey rek boo defee si da nga fa fekk la tàmbulee ca la gën a rëy moo xam avion la wala bato bay ci gën a suufee dañ koy liggéey kon loolu lépp doon xéewal yoo xam ne yàlla mu leen ko defal mu réew mu am ak dal xamuñu loolu lu dul liggéey ak téye seen bopp ni xeeti atlanta yi ngay dégg feneen ñu fay rey ay chinois ndax ñoom seen yoon nekkul ci lu dul seen koom-koom xanaa kay ñeneen ay américain ki français ñeneen yi nga xam ne dañuy bundu xatal jullit yi ñoom la ngay dégg ñu leen di rey ak di leen boobu feneen waaye ab chinois nii waa ne nga dégg mu bokk ci kon kaanat qaryatan aamina mutma'inna yaatiha rizquha ragadan min kulli makaan loolee yàlla wax ci makka ne ab dëkk la boo xam ne bu am sécurité la bu amul dal la boo xam ne wërsëgam da koy ñëwal jóge fépp mu ne su ko wax ci siin fu ne la ay nit di fay jóge di fa dem di jëndi marchandise kon muy réew moo xam ne mu am sécurité la waaye fa kafarat bi anumillah na waa makka weddee woon xéewalug yàlla wedde yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonente bi ñaanal leen alkane allahuma usdud watataka ala bodor wajal alayhim sinina ka sinina yusuf mooy di dal siin ak mbokk jullit ya nga xam ne ña nga fa nga xam ne ak kuréel lañ fa boo xam ne bari wuñ lool ñu leen di wax al égo ñu ber leen ñu doon ay julit ñu ber leen nanguwuñ leen seenum julit nanguwuñ leen seen pas-pas di leen xeetit métet métital yu leen koy teg di leen boom di euh, toj seeni jàkk di toj seeni jàngukaay nangu ñu wax lu ñu jàng alquran di lakk seeni kaamil di leen forcé ñu lekk mbaam xuux ak naan sàggara bi nga xam ne lislaam leen ko tere waaye kay loolu fa la tooñ mën a yem loolu di xaw diir bu yàgg àddina bépp di tekk seen bët ñuy wax Nations Unies al Umamul Mutahida ñi nga xam ne ñoo am matuwaay li xaw ñu mag caa wan a wax war caa jóg ñépp noppi di seetaan mbokk jullit yooyu xolub jullit boo xam ne ngëm yàlla nga ca di wañax waxtu bu nekk saa yu teg boroomam di ñaan am na ñu jàpp ne ñaan yooyu de ak métital googu nga xam ne siin mi ngi koy teg mbokk jullit yooyu moo tax suñu boroom teg leen jàngoro jooju ca suñu borom wa maa yaalamu junuuda rabbika illa hu fa nga jàpp ne fa lay ñëwee du bokk ak fam lay ñëwee ca dafa bari ay ngànnaay moo tax jàmmoor jàmmoo ak borom bi rek mooy li war doomu aadama waaye saa yu bëggee jàmmaarloog moom lépp suñu borom mën na ko def muy arme ci kawam ci alal ko ci anam goo xamante ne bii mu gaaw a gaaw la foofu seen mbokk jullit yooyu dañu wax ne àddina bépp kaso ëpp fu ñu toj ay jullit mooy foofu ay million million million jullit ña nga fa ci seen illa an yaqulu rabbuna allah laa ilaha illa allah mooy seen bàkkaar loolu kon lu mat a bàyyi xel la su adduna bépp àddee seetaan leen tamit lay dal siin du yem ci waa siin képp wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa mbooleem ñi fa daan dem wala ñi nga xam ne dañoo tënkoon seen koom-koom ci siin bu siin sëggee ñu daal di sëgg na ñoom bu taxawee ñu daal di taxaw na ñoom looloo tax jullit ñi dañoo war a nekk kal kal bunyaani yasuddu baaduhu baadan al muminu lil mumini kal bunyaani yasuddu baaduhu baadan ida staka min udwun tadaa ilayhi saairu al adaai bi sahari wal xudd waaye su seetaan amee rek su musiba ñëwee ñëpp lay dal ca sunu boroom li mu gën bañ mooy tooñ yaqulu llahu lilzalimi la ansurannaka walaw baada xiin ki ñuy tooñ moom sunu boroom da koy wax ne danaa la dimbale ak lu mu yàgg-yàgg ca dara fàdduwul fi moom képp koo xam ne ab tooñkat la loo am am kattan bul jëmee sa kattan gi di jéem a jaamaan ak borom bi tabaraka wa taala kon beddi nañ suñ mbokki jurit ñooñu di leen teg xeeti nattu xeeti coono yu nekk waaye fi mu ne nii àddina bedd na leen kenn ñëwul te dem kenn du ñëw fal jazaau min jinsil amal lu waay leb la lañ lay fay kon jàngoro jooju nga xam ne moo dal foofu kenn yéenewu leen kenn du leen ñaanal na nafa sax waaye lañu ñu bëgg ñoom mooy mbokk jullit yooyu ñu leen tudde ak yëboo dañ leen bàyyi ñu dund ci seen ak njulit dañ leen bàyyi ñu dund ci seen diine li lislaam xaraamal ci ñoom ñu xam ko bàyyi ko waaye ak tooñ koy mënta weesu faw nga lekk mbaam xuux faw nga naan sàngara te nga ne bëgguma xanaa boo ne bëgguma waaye sa di diine jële ko tere rek lañ la ñuy noonoo kon diine jële ko tere kon moom lañ noonoo kon seetaan gi mbokk euh, gi àddina bépp seetaan mbokk jullit yooyu euh, naa indi seetaan gi waa àddina bépp seetaan siin tamit ci seen jàngoro jooju bàyyi leen ak ñu wéetoo ko ak ñoom kenn kenn yéene wu leen ko kenn du na yàlla bu mu fa jógee waaye la ñuy ñaan mooy yàlla bu mu dal benn jullit mépp réewum jullit yàlla bu fa yekk mépp réewum jullit mu fa yekk saa yoo xamante ne bii kon am na ab kuréel buy nokkute ba leen kuréel di leen tooñ ñu leen di seetaan musiba bay ñëw de du yam ca ña tooñ képp wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa yal na suñu boroom yëkkatil ñu suñuy tartar ak suñuy natt yal na ñu muril xeeti balaa yi ak musiba yi yal na ñu saafaral xeetu jàngoro yi yal na yaatal ay mayam ak i xéewalam suñu kaw ak ci kaw mboole mbokk jullit yi yal na sàmm jullit ñi sàmm tamit diine ji ak fu ñu mën a nekk yal na ñu fegal xeetu musiba yi ak xeeti natt yooyu ak bépp dogal boo xamante ne bii bu ñaaw la yal na yàlla def ay jaam yu mu xirtal ci ñu jaamu ko te mu nangu leen seenu jaamu mbokk yi liñ mën a jële ci loolu moo di ne yàlla kenn du jaamaar la moom liñ mën a jële ci loolu moo di ne ab julit kenn du seetaan mbokkub julitam liñ mën a jële ci loolu moo di ne julit ñi dañoo war a doon benn lu dal kenn ñëpp àndandoo ko taxawu ko euh, yàlla yàlla defal dégg ak topp yàlla yàlla def ay jaam bi xeet at yu ñu jaamu ko te xaar